visité naa euh, euh, Kaolack objectif visite bi nag di ñëw fii di wax naan lii baax na li baaxul li may def rek mooy attire l'attention du président de la République ak gouvernement bi ñu xam ne situation nawet bi comme ni ko spécialiste yi waxee ne nawet bi ndox mi day gën a bari fekk di gérer ay inondation baax na gouvernement bi def na ci lim ci war def lépp ci man-manam waaye war nañoo xalaat prévoir ba transformer loo xam ne dafa dañu yaakaar ne lu baaxul la ñu transformé ko muy lu baax ndax ñëpp nañ ne nawet ndox baax na ci réew baax na ci lépp ko man damaa jàpp ne xalaat yan programme lañ mën a def ba ndox mi ñu mën ko récupérer mën ko jariñoo l'objectif du ndox mi sax nañ ko récupérer sànni ko ci géej gi déedéet nañ ko récupérer mën ko jariñoo te zone inondable yi nekk Kaolack yépp ci catu dëkk bi lañ nekk bu ñu defoon ay programme boole ko je pense que luñ ci mën a investir tamit dana amal njariñ population bi loolu nag man ci lay woo gouvernement bi di ci euh, woo population Kaolack waaye ndax da am loo xam ne tamit ñun ñoo ko mën a defar suñu bopp bi ma demee xaaxun gis nañ bu baax a baax ne defar nañ liggéey bi basin bi mais bu basin bi feesee day turwaat ci kër kon li waroon a am moom mooy xaaxun am beneen xaaxun deux mooy ci kanam ñu def fa loo xam ne nii war nañ ko mën a dem ci tool yi ndax ay tool a nga fa soriwul matul deux kilomètres euh, Parcelles Assainies moom comme ni ñu ma ko waa Parcelles Assainies wax dañ ne si parcelle non assainie yaakaar société HLM moo ko def waaye l'objectif mooy ñu man ko assainir euh, ce matin tamit ma dem na Mbàpp mais daal globalement su ma ko mënee tënk rek mooy attirer l'attention des autorités pour problème bi am kaw la beneen bi ki des mooy ñun tamit ñu xalaat nan lañ mën a xalaatee pour jàppale kaalogaa yi ñi nga xam ne am nañ ci ay jafe-jafe mais cette fois-ci bëgguñ ko def publiquement di ko wane dañ koy def discrètement ci niñ ma ne loolu la ñu suñu diine wax ndax ku dem ci suuratu la vache 264 ngeen xool ko su ngeen génnee ngeen liir ko ngeen xool lan la wax ci loolu tamit ci dañ xalaat ne war nañ mën a jàppale jigéen ñi ndax gis ngeen semaine bi passé dem nañ fële Medina Baye inauguré fa benn unité dañu bëgg créer fi cinq unité zone bu ne am benn unité boo xam ne nii au moins dutuñ waxati Kaolack produire localement et consommer localement dañuy wax quartier produit quartier localement et consommer localement te loolu bu ñu demee fële euh, Italie gis ngeen ne fabriqué fa nekk yëpp daanaka eh, ay ay fabrique yu ndaw la pour jàppale population bi en tout cas daal loolu mooy li ëpp solo ci li nga xam ne nii moom lañ jàngat ci visite bi. keroog bi mu amee bi ma ñëwee ci marché bi je pense que loolu redynamiser ñëpp ñëw ndax bu doon tey ñoom dañu mën a ñëw toog nañ une semaine après toog faa teg seen temps kon même objectif bi ma amoon la lendemain ñoom ñëpp faroon na ñëw waaye bi ma ñëwee dañ def loolu. mënoon naa ñëw nag def comme ni ñëpp wax joxe naa lii joxe naa lii mais man fi ma bëgg a orienté ci ñoom te wax naa leen ko mooy orienté leen mooy nan lañ mën a def pour ñu jàppale leen ñu ñu démarré waat seen liggéey c'est pas forcement démarré seen liggéey dañoo war a dem wuti cantine wala dañoo war a dem wuti taabal chambre de commerce am na ay programme yoo xam ne mën na ko def jàppale leen ñu mën a defi leneen ñenn ñi defi leneen ñenn ñu continuer bu dee assemblée dix ans renouvelé ko da nga fa dégg da nga fa dégg xeex kon nag suñ créer benn institution mu nekk public ñu war di ko évaluer ñu war di ko xool kon loolu moom dañ ciy ànd ñun d'accord nañ ci bu baax a baax a baax te loolu lañ doon demandé soo xoolee suñu revendication yëpp lool lañ ciy demandé évaluer ko ak appliquer réforme 2017 bi réforme bu amee li ma doon kaas naan ressources yi nekk Dakar na ko ñëpp bokk réforme bi loolu la wax comme man damaa jàpp ne débat sax waru ci woon am man li may wax ne nañ ko def réforme 2017 loolu rek la wax loolu rek moo ci ëpp solo waaw li ci ëpp solo mooy ressources yi ñëpp bokk dañ ko jël waa Ziguinchor am ci waa Tamba am ci waa lépp am ci voilà kon daanaka sans dire que réforme yi sans dire que li ma wax nañ ko def réforme yi mooy su président nee ne réforme yi nañ ko def rek mooy lan loolu laa wax li nekk ci biir réforme yi moom laay moom lay kaas tey